برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينا ngeneel yi dana dem sax ba ci ñoom ñaar seen ak jaamu yàlla te xemuñu ki am soxna ak ki amul soxna bu ñu bokkoon julli la yàllay fay ki amul soxna mooy gën a tuuti la muy fay ka am soxna ndax kiy julli gàddu responsabilité julli gi boole waale ci responsabilité njabootam gi te ñeenti es ya mu faraloon dina di la wax facture sones Senelec beeg Sonatel beeg saako ceeb bi te sa julli ki yàquwut tegu ci yoon man tayam ak ki julli ta ñent yi le xalaatut ci ben ndax dara warut ko ci kon yoy ci ay ngeenel la motax dal ci ngeenel yi dama lay wax ne ngeenel yi bi ci njëkk sey ci bopam ku ko def muy tak soxna rek tegu nga ci yoonu yonuntu yi dugg nga waar woo xam ne soo xoolee sa kanam gis ca Adama moo la ci njëkkoon a sóobu nga xoolaat ci peggam gis ca yonantu yàlla noox nga xoolaat gis ca yonantu yàlla Ibrahim dem xoolaat ba gis ca tabaarakallaahu yonantu yàlla Isa ba ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa amul benn yonentu ci yonentu yii ma limal la ak ñu mel ni ñoom lu dul ba dañoo nekkoon nit ñu doon denc ay soxna yore responsabilité njaboot gi boole ko gàdduwaale responsabilité seen diine ji ak xeet wa moo tax kon ku yoonu yoonu woo takku soxna yaa ngi ci ngëneel lu rëy rëy yaa ngi ci yoon woo xam ne yonumtu yi la jiitu ca la ñu nekkoon ñaareel bi tamit boo takkee soxna yaa ngi génnee sa bopp ci yoon wi nga xam ne ci la mala yi tegu tegu ci yoon wi nga xam ne ci la yàlla teg nitam ñu nite ñi mala yaamul takk soxna kenn ku nekk la neex ak fi la neex looloo tax seen askan wa jaxasoo doo ca am koo cay féetale ca baay jaag ya ca aju yàlla nag bëgg a askanu doomu aadama yi bañ ak ak njaxasoog ak yàq ba lu ca bokku bokku ca lu ca bokku genn ca motax mu yonal ab sey ci ñoom bu diw juddo ci sey ba ñu man ko momale baay ja bu judduwul ci sey duñ ko mëna momale kenn ndax ka def lu bon loola dafa delo bopam ci mala motax bu taxawé ne mako jur timit sharia ne ko waxo deug ñak nangok sharia ga tax bu deexee du ko donnu moom mooma bu deexee tamit du donnu soxna sa ndax du jëkkëram du jabaram doom jooje mu nangu tamit du donnu baay ja sharia day wax ne jurut ko rek doom ji ñu rekk ne taral lislaam nangu ko yàlla nangu ko mooy doom ji juddu ci sëy ba yonent bi ne alwaladu lil yi moo tax kon saa yoo nekkee góor jigéen gu la neex nga dajeeg moom am ak moom rapport wala nga nekk jigéen góor gu la neex am ak yow rapport yaa ngi delloo sa bopp ci jikkooy mala di yàq askan ci ni ko yàlla tëralee moo waral nag yàlla ne comme da jëf-jëfi mala nañ la def da jëf-jëfi mala nañ la jëf nañ jëf ci yow jëfi mala yow mi ko def mosoo denc ñu ne déeréet yow jigéen gi mosuñ laa denc nga ne déeréet lislaam ne nañ ko woote ci stade li jaroon a woote grand combat mooy ñaar ñu moy te dencuñu wala dencuñu leen moo xam mos nañ koo def wala mosuñu leen koo def ñi caw leen kenn ku nekk téeméeri yar su fekkee mos nañoo denc wala ñi denc leen ñi gasal leen i pax dugal leen ca roose leen ay xeer ba ñu dee ndax ñoom dañoo jëf jëfi mala kon dañoo war a jëf ci ñoom ni ñuy jëf ci mala mala bu defee lu oyof nañ ko dóor bu defee lu ëpp nag nañ ko rey moo tax kon ku mel lu def noona yaa ngi yàq ni yàlla organiser doomu aadama yi ci askan yi ak ci njureel geeg fi mu war a jaar yonent ya njëkk caa jaar aadama njëkk a ñi may ko soxna muy sayyidatuna Hawa mu am ca ñaar fukki ëmb yaak benn ñaar fukk yépp di cheikh kenn ka ñëw rek moom di kenn wet lol ci biiru yaay ba neke moy lerak, leer ak gane hon ci adama ci haqiqatul muhammadiya ba di siisa ba mam khalifa ni huwa shisul wasiyu man kana fardan haythu kanat tuamanil abunau, ah, motax tax momu nak nag siise yu bari feex lol ñu ci bëgg jaaré naan yonantu yi dégg na ku santoon siise lañ wax bil fathi ndax tamit maa laa yéen sarif la moom bañ na ko ba dañ koy fataaga rek lay taxoo waaye su fekkoon ne sax moom du wut luy soppeeku ñi man koo kasra léeg-léeg li ko doon sax ab siise siise man caa jaar ne siise waaye nag siisu lañuy wax wala ñu ne siisa waaye nag siis yi moom amut ci kon yonentu yi amut kenn ku ci sant siise nag ñoom nag ñu ngi ko bëgg a ci bari ci siisa moomu waaye ñoo ko bëgg a créer seen bopp rek nag dugal ko ci diwaan bu mag booba nga xam ne ci lañu ëmb e, tarxiis ak caali caalik gi siisi siisi diiwaan bu rëy la daanaka mën na ñaar fukki xaaj loola boo demee ca lañ doon jéem a xëcc loola maanaam ca la bokk ñaareel bi tamit ci ngëneelal sëy sëy ci boppam dafa bokk ci màndarga yuy tektalek magga yak yalla kartanam ga ci nim ko doxale ci diggante doomu adama ci gor ga ak jigen ga ba taxna mom mu bind adama ci ban bind hawa ci adama def manam adama muy jeuker je jël hawa muy soxna sa di wetaliko ku wet koka kenn ku ki nek di wetaliko sa morom ci sa wéetaayu morom mata kenn ku nek bu demo nak bopam du meuna dem mo waral kon lolou day tektale lola. tektale gi mu koy tektale carte nak mag ak yalla yalla di wax ci téeréem bu tedd bi di alquran ne ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan kathiran wa nisaa kon lolou mi ko ci tektale ñaareel bi tamit ci beneen aaya buy tegtale loola ngay wax ne yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum atqaakum inna allaha alimun xabir kon yàlla daal ñaa góor jigéen ñu ànd mu jaarale ci seen diggante ak meññant wala sax jaarut ca loolu lépp dafa tegtale màggaay ak kàttan ak yàlla mi sosee Adama ci bàqu sosee Xawaa ci Adama boole leen ñoom ñaar sosee lu dul ñoom ñaar ci ñoom ñaar kon ñaari aay yooyu ñoo leen di ko tegtale ñaareel bi ci ngëneelal sëy ak màggaay ba sëy dafa bokk ci xéewalu yàlla yu màgg yi gu mu defal góor defal ko jigéen ci kenn ku ci nekk di wéttalikoo sa morom ca loola kenn ku ci nekk am ca bànneex bu ñu lay bindal yool kenn ku ca nekk jëlee ca ay njariñ yoo xam ne maanaam dañ koo remplaçante loola lépp mu mën a jur ak cofeel mën a jur ak yërmande loola kon dafay tegtale xéewal ak yàlla gu rëy gum def ci loola moo tax mu ne moo tax mu ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum aswaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun euh, ba tey tamit moom day tegtale kartanam ga ak màggaay ak xereñam ga ci bind gim bind góor moom yàlla def ku mu ci góor ak jigéen ki ma ngay jeng jëm ci wuti moromam ma kële di jeng jëm ci wuti moromam ma xemeem lëkkalikoo ga ak dund yàlla boole yeewee leen ci buum ak cofeel yeewee leen ñoom ci buum ak yërmande muy jéng goo xam ne jéng fitre la muy almaylul fitri yu la goo xam ne maanaam yàlla nga koy wax ba ne li nu ilayha kon yile yëpp dafay tegtale maanaam màggaay maanaam yàlla ci loola mu def ak sëy njariñ lu rëy yi nga xam ne làmboo na ko ah beneen bi ci tegu tamit yonentu baa ngi junji màggaay ga njariñ la ba ne mastafaadal muminu baada taqwallahi azza wa jalla lahu min zawjatin saaliha in amaraha ataathu wa in nazara ilayha sarathu wa in aqsama alayha abarathu wa in gaaba anha nasaxathu fi nafsihi wa maalihi ibnu maaja moo solo xadis boobu yonentu bi ne ku gëm yàlla jariñu hut gannaaw ragal yàlla xiwu gën a rëy soxna su baax su yàlla jox muy sa wéttal soxna soo xam ne soo ko digalee mu topp sa ndigal soo ko xoolee nga bég loo gëñ ci moom muy dëgg doo kafaara ngëñ la boo fàddoo wan ko gannaaw mu laayi biir la ci sa bopp laayi biir la ci sa alal ba du la yàqal dara kon ndeke gannaaw ragal yàlla daal lu ëpp doole ci yiw na su baax su lay dimbale amut fi moo tax gis nga góor lu mu yaafus yaafus ak lu mu lekk lekk ndig bu ko yalla maye soxna su ya fu sem nga ak lekk ndigam nga du feñ waye gor lu mu gor góorlu ak lu mu jambar jambar bu ko yalla maye soxna su doy war nga du feñ motax dal ak gor ak mbaxay ga mi ngi meuna a ci soxna su bax yaafu sa góor ak mbonaay ga ak caaral ga mu ngi mën a feeñee ci soxna su bon moo tax léeg-léeg góor romb la di tiisaru nga yéem ko waaye waat naa ci yàlla jigéen gu baax rekk nekk ca gannaawam moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko may loxo mooy eseelam bi mu mën a yéeg bañ mañ koo séen waaye bu soxna sa yëkkati woon eseel ba rekk mu daanoo ànd ak ñëpp moo tax xukamaa di wax ne wara a kulli azimatin wara a kulli azimin azima nekk na ci gannaawu góor gu màgg gooy xéem gu ne ci gannaawu jigéen gu màgg rekk la nekk moo tax euh, géwél a log yi ñu dara déglu lañ léeg-léeg géwél a log yi dañuy wax ne ay xale bu ñu juddoo bees nekk tu tànk di ay ndaw ku la ci gën waajur muy gën la yaay moo la gën suñu màggee ku la gën soxnaa la gën suñu màggatee ku la gën dooma la gën suñu dee nag ku la gën jëfa la gën ñeent yu jara la géwél log yi ñoo koy wax yonentu bi sallallahu di wax ci njariñal sëy njariñal am soxna dafa daan wax ne min saadati ibni aadama salaasatun wa min shaqaawati ibni aadama salaasatun min saadati ibni aadama almaratu saaliha wal maskanu saalixu wal markabu saalixu wa min shaqaawati ibni aadama maskanu suu wal markabu suu imaam moo génnee xadis boobu yonuntu bi neena bokku na ci texeek nit ki ñatt ñatt dal kuko am texe nga waye mu ne ñatt timit kuko am texewa wadi nga ci yërëm la waye ñatt ngi ni kuko gis kuko am kulo gis ñee jarna jar xel nga takko ko ñetti ba muy lim mu ne moy jabar ju bax jabar ju bax dana tax ñi ñe goor dana tax nit ki goor gi texe adunaam lepp texe jabar ju bax jo xamne boko baye gannaaw mu wattu njabot ga wattu sa der wattu sa ala wattu sa keur nam koy wara defare defar ko ba bo amé gan do rus entré ko way léeg nga am soxna su doy war so xam bo naré am gan da nga da nga téléphoné def len nangam ak nangam bala nangam wala dama nara am gan bayi len xel ci nangam ak nangam jigen bu melee nam war a mel kenn du ko annoncé gan ndax fu mu toll ma ngay bàyyi xel ne gan ñaa ngay ñëw kon yonent bi nee na bokk na ci texeeg nit ki doomu aadama mooy jabar ju baax ñaareel bi mu ne mooy dëkkuwaay bu baax ñetteel bi mu ne mooy waruwaay bu baax mu ne ñett ku ko am sa àdduna texe nga sa àdduna texe na texe nga ci sa àdduna jabar ju baax dëkkuwaay bu baax warwaay bu baax safan ba timit mu ne na ci texee wa deeg adama ñett yu bon yi le jabar ju bon way bu bon waruwaay bu bon waruwaay bu bon auto bu magget la bufanane bo xamne waci pousal mu tak la auto bo xamne bu fanane batterie ba day leg leg nga yenn ko yobbu ca gaay sar si batterie ya asibu turu yak sa yere yi nga tok ndeke sa asibi yak na sa yere yi bu yag bam mu ci ak sàgganu go xamne xamoko hon ci sa bop guddeeg bëccëg yaa ngi ca mécanicien ya iwil ba guddeeg bëccëg tabarakallah po esabment bi ma ngay sahar quartier bu mu dugg dana ciuray la ñepp ciuray lo xamne ne kenn soxlawut ciuray lola auto bo xamne ne guddeeg ma ngay këriwe yang ca ya yang ca tolier ya ya nga ca mécanicien ya ya nga ca nga xam sarse batterie ya auto bu nona nona yonuntu nee hadik adunola, la yalla nañu yalla musal ci auto bu màgget ñaarel bi mo dekk way bu bon way bu bon bo xamne bu tawé ndox ma fess tepp ci bir kër ya ba mujj manam lal yaag fëtëy yaag lepp ma ngay teumbu ñakoy dundu ñom ko dëkkuwaay bo xam ne foos ba ñaari fan yu nek mu fess di touru ca mbedd ma nek sobe mu kalaf ye julli ji jëm ca jàkka ja dëgg ca yóbbuwaale sobe ca bir jàkka ja ña ngay julli di kabaraka rukoox hak sujud fekk seen julli ye yàqu bu ta fekk borom kër goga nga xamne ne bu bon boba moko ko yobbo ba mu yàq julli mu kalaf yi demul ca jakka ja dugal na sobe ca bir jakka ja tamum demu ca loola bàkkaar bu rëy la kon kër gu bon daal yàlla nañ ci yàlla musal kër gu bon goo xam ne ma nga xat léeg-léeg boo amul sa tàllal sa tànk yi sax sa tànk yi mën naa génne ci buntu kër ga kër ga xat ba boo amee gan duñ am fuñ lal seen sajaada yee pour war a mën a julli kër ga xat ruqe lool naqaree dem lool ku la bëgg a seet si réer dugg maanaam toggoo coono yu bëree bëree bëree bari ku ñëw ci kër ga sonn ku sonu ba xegsi fa du meuna noppalu lolou lepp moy maskanu su maskanu su dal moy keur gu bon lim lambo dafa beuri bon ci dakare dem bon ci ruqe bon ci nek way ba bon ci fosia ya, bon ci nek tëddin ya, bon ci lalya bon ci yenen ci aju yëpp mom dugal na ca kon dal yal nañu yalla musal ci keur gu bon waye nak keur gu bon limuy bon bon ak way bu bon limuy bon bon jabar ju bon ko gëna bon motax bi yonentou bay lim manam mu ñëkke jabar ju bon dor caa tek kër gu bon door caa war way bu bon ndax jabar ju bon mën naa wëral kër gu bon li bon sax sa jabar sa jabar manam sa kër baax lool sa jabar bon bon nga dem ba mu bonal kër ga loj mëno ca dara demet sa manam jabar ju bon mën naa waral way bu bon sa jabar bon nga am way bu baax du dox farata guddeeg bëccëg nangam ak nangam sa yoonam néew ca loola ba mujj waruwaay ba mujj soppeeku lu bon kon dama ne boo amee dëkkwaay bu bon bu bon rek nga am soo amee waruwaay bu bon moom bu bon rek nga am waaye boo amee jabar ju bon mën na laa yóbbu ci ñaar ñu bon ñi ñëpp nga boole ñett ñu bon ñi jabar ju bon dëkkwaay bu bon waruwaay bu bon yi ñett nag ku koy dund bëgg a teewlu julli bëgg a teewlu jàngal bëgg a yar sa njaboot yaakaar naa ne du mën a sotti yal na yàlla musal ñu ci kon daal li ma bëgg a wax mooy ndeke bokk na ci ngëneelal sëy bu la yàlla mayee ba nga am soxna su baax bokk na ci ngëneelal sëy yonentu nee na amul benn ku gëm yàlla ku jariñu ci yàlla ci xiwu gën a rëy jabar ju baax bokk na ci ngëneelal sëy ku ku tegu ca yoon woowa tegu nga ci yoon wi yàlla tax mu bindee nit waaye tamit bokk na ci ngëneelal sëy ku tegu ci sëy yore soxna wala nga yore jëkkër yaa ngi ci yoon woo xam ne boo gestoo gis ca Adama gis ca Noox gis ca Ibrahima gis ca Muusa gis ca sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla wërsëgaloon na ko fukki soxna ak benn danaa ñëw ci yow wax la lan moo tax mu takk fukki soxna yaak benn ak yëhóor yu bon yaak wax yu ñaaw yañ cay wax danaa la wax benn soxna bu ne lu tax mu takk koog lu ko waral ak njariñ lu rëy li mu jur ci lislaam ngay ba nga yëg ne yow daal da nga waroon wax ne na ko yokk ndax bu yokk woon yiw wi dana gën a yokk ci lislaam ba tey tim bokk na ci ngëneelal sëy yonent tooy wax ibnu abbas moo ñu indil xadis bi jëlee ko ci yonent mu ne arbaun man utiyahunna faqad utiya xayra dunya wal axira qalban shakiran wa lisanan dhakiran wa badanan ala albalaa'i sabiran wa sawjatan la taxibuhu xuuban fi nafsiha wa malihi wa malihi yonentu bi sallallahu alaihi wasallam wax ne manam ñentangi ku ko yalla jox feugal sa deun ne yalla jox na ma xiw xe manam mbolem xeti hiwi aduna yi jox na ma mbolem xeti hiwi alakhirah yonentoy wax ñent yi ma bëgg lim ku ko yalla jox jox na la yiwu aduna jox na la yiwu alakhirah mu melni sahaba yi laaj ko ne ko ñent moy yan ndax ñi mëna dem wuti ko mu ne moy xol bo xamne ne fu mu toll day sant yalla do jambatu naan dekk bi do ñaxtu naan nangam ak nangam ku mënul sa bop dara ki la mënal lépp lum la mënal nga war ko ko santé mëno wax mëno xol mëno deglu mëno dox loolu lepp yalla bari ñum ko xeñ te defuñu ko dara may la ko yow te defaluloo ko dara nga jambatu nan o oh, ma dépense togati jambatu di créé ay nattu nan dama yore ordonnance di créer jàmbatu naan sama baye ya dé dama bëgg dem ci dëj ba am na xamné bala ne balaa aajo faju ñi ray sen bay ñi ray sen jëkkër ñi ray sen doom wala ñu fébar loo leen wala ñu teg leen ay natt yu dul jeexat barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujal faydu tijan jox ñu ñuy naan